waaw loolu kon tawfeex la ndax daanaka man daal maa ngi côté donc li may def mooy damay jaar central équipement rek li jëm ci bagage ak moo ñu ngi dem incha allah bu soobee central équipement dafa centraliser lépp loo soxla ci équipement cuisine ci seen ndaje dine yu mag lu si mel ni màggal wala gàmmu benn bërëb rek sa aajo daal di faju central équipement di jox lépp luy taaral kër di bakkanal dund gi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 wajjahtu kulliya bihamdin wa sukur ila waliyil mu'minina wa sukur wajjahtu kulliya bihamdin wa sukur asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi seen émission wàccaayu màggal gi mu ngi fii ci Touba ci barab bu sell bu ñaan Daarul Xuduus Daarul Xuduus di barab bi nga xam ne fi la Serigne Touba Khadimu Rasoul defee woon intikaaf muy xalwa boobu mu duggoon ci 1895 dëppoo ak a Dieye si Chine ci atu gàddaay gi fi la gisante ak yonent bi sallallahu alayhi wa mu jox ko ndigal li tax mu dem ci géej gi seen émission wàccaay màggal gi ñëw fi tey incha allahu fas yéenee ak borom xam-xam bu mag a mag bu ñaan sëñ Bay Longoor incha allahu mu dikkal leen ci lan mooy. أثبت asalaamaaleykum bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu leen di nuyoo fii fii Daaru Xuddus di leen ziyaara ci at mu yees mi leen ndokkeel bu baax di kilifay diine yi kilifa yaada yi jiital Cheikh Mahamadul Muntaqa Cheikh Ahmadul Muxtaar wahaballaahu lahu maa lahu taar ñaan jàmm ci réew mi ak juboo ak jaamu yàlla gu ñu nangu gannaaw loolu fii nu nekk di Daaru Xuddus ngay laaj histoire diggam ak Cheikhul Khadim Daaru Xudus day ci kër yi sëñ la yi nga xam ne moo ko sanc ndax dafa bokk ci e, Touba ab xaaj la ci Touba ndax 1888 Cheikhul Khadim jóge Daaru Salaam di wër pàkk Touba bi suñu borom dikk ko mu di ko wër mu di ko ko tekkal mu di ko wër ba gis ko ci Ashura 1888 tombe gan ak jamono taawam bu tedd ba Cheikh Mouhamadul Moustapha yàlla dogal mu gis ko daal koy daal mbaar mbaaram ma daal di fa mën la bu Fawzeyni ba ca rajab juróom benn weer mu tanteeg sanc bi yegg nag mu war koo sanc ci rajab tombe gën a jamono Cheikh Mamadou Fadil mel ne at moom i ak Serigne Falilou bi bi sanc bi yeggee nag ba ca déwén sa mu sanc daaru minan ci sowu Touba ci déwénaat sa Cees la sanc ci bëj gànnaar bi pàkk bii di daaru Quddus euh, daaru Quddus nag mu def ko muy kërug jaamu yàlla rek kërug wéetal yàlla kërug sellal yàlla kërug tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak julli ci moom foofu du soreeg moofu waaw ci ci tollale du soreeg foofu bi mu ko sancee di fi wéet di fi jaamu boroomam def fi jàkkaam ji nga xam ne mooy ji ci suñ kanam di fi def ictikaaf weeru koor néegam bi ci biir di néeg bi nga xam ne sëñ Daaru Xasan Njaay la ko takkloo woon di taalibeem bu màgg bu tedd mu fa def ay xalwatu bañ tudde néeg ba baytul xalwa sëñ Daaru sax léeg-léeg sëñ Tuubaa daana ko fi liggéeyloo ci wàllu xëlwa ba gisee na fa wax nañ ne yoonu géej gi ak yeneen yu bëree bëri suñu borom fa ko ko wone ba ni yàlla dogalee koorug 1895 mu woore ci kër gi ba ci fukki fan yu mujjee mu dugg lixtikaaf ci biir jàkka ji ngeen di gis lixtikaaf boobee fa la ko sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dikkale ànd ak saxaaba ya ak ahlu badar fa la ko joxe ay maqaama ak i martaba yu kawe ci yoonu yàlla wax nañ ne alxutbaaniyatu foofee la ko joxe fekk na ay atam manqué ñeent fukki at kon sëriñ bi nekkat mi sanc Tuuba bay sanc daaru bay sanc daaru Xudus ay atam manqué na ñeent fukki at loolu di seetlu bu rëy mu amee maqaama yooyu waaye moom du doylu ci boroomam ngir bëgg yàlla ak yonente bi mu am yeneen yu mu gisaat ci kanamam waxante ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xalu itikaaf boobu yi mooy sababu baatin bi nag mooy ñu wax ne koor gi ku mujj fekk Tuuba fukki fan yi mujj ci koor gi da cee dugg xalwa mooy koor gi ama bay sasin muy trois cent douze bu ñu duggee xalwa nag ci mujj xolal li ko yënd saa sam feesu feeñu ni ko sëñ Malick Diop nettalee ci Irwa Nadim feeñu ko ne ko Ahmadou day Sakkunda boobu ci dàkk jàkkee daa ko dóor jiile fi doon dugg xarbat booba dañuy wax ne booba jàkkee dóor dóor la mooy dóor dóor mooy sàkkatu ngeer ñu mbaa ñu xadde ko gattax ca kaw ñu ko feeñoon ne ko li ngay sàkku de bari nañu la jiitu ñu ko daa sàkku waaye képp koy sakk ba suñu moom jox la ko te rafetaloo ko waxuma la nga nga ñàkk la nga doon wut waaye da fay jaari yàqule ba faaw te sama xarit nga boo xam bëgguma dara lu yàqal ne ko sa diggante martabatu xutbaan yi des na ñetti mooy li tax nga am daraja darajay euh, xutba samaan waaye mees na laa jégal ñetti weer yi àggal la ca tey tey tanga tanga toog nag suñu ton ko ne ma man de xutbaan yi yàgg yëpp taxumaa jóg li ma tax ju daal mooy mbooloo mi ànd yow muy ahlu badar bokk ci ñoom laa bëgg bokk ci ñi sës rëkk ci yow nu ko ah loolu nag day da ko ko ba ba mel lu faat mu ne ko la koy day ay natt lay doon ay fitna ay tartar yoo xam ne bakkan du ko attan man ko ah, man de dama bindu sama bakkan bay xam lu mu at nag lu mu tëli sama borom moo bind bakkan moo xam lu mu attan waaye lépp lu ñu ma teg day lu mu diis diis diis lu mu tartar tartar su ko bakkan bi dékku rek sama jom sama jom dékku na sama fi dékku na ko mooy kon nag bismillah waaye bismillah ji day ànd nga génn sa dëkk bi du Tuubaa nag ndax gannaaw Touba ñaan nga suñu borom aaral aaral la ko suñu borom nangu na ñaa ngi aar na ko aar na ko ndax li fay yaa ngi fi benn dool fekk kon faaw nga génn Touba yonent yooyu nag ay maqaama la yoo xam ne jaayante ay njëkk kawe yu bari yu metti moo koy maye épreuve yu bëree bari la ci jaar boo ca génnee suñu borom dool la koy may épreuve yooyee yoonu géej gi ca la kon fii la jaayante ak yonent bi ak boroomam yoonu géej gi ci mu ci biir jàkka ji euh, bi yàlla dogalee mu jaayanteeg moom ne ko nangu na épreuve yooyu yi ñu ko war a yan te muy ñaar téeméeri épreuve ak juróom-ñett fi tofal bu ci ne mën a rékkiloo gëm wala mu mën a rey bakkanu jàmbaar mu nangu lépp jaayante ko bi ko yàlla dogalee mu génn ca lextikaaf ba julli weeru julli korité wi ba muy julli ma lal der bi bi mu daataan lal bi nee ñu mag ñu bari ak seex yu njëkk yi njëkk seex ak seeni kilifa julli si woon nañ ca julli korite googee bi ñuy lal deram ba ñu ngi koy xëccoo ba koy waaj a xotti mooy leen balaa déwén de danaa ko lal foofu du ma gis kenn bañ koy xotti bañ koy xëccoo dekete boobu gis na yoonu géej gi ñàkk ñu war ca ca suba sa rek ñaari fan shawal mu dem Mbacke Baari yi sanc fa di xaar nattu bi. ba ni natt bi egsee ci zahir mu daal di kon ñeenti weer la am bay juróomeel shawal sul xida sul xijja muharram safar ñëw bi safar ñëwee ca jël benn ga rek la natt bi egsi ci kawam tubaab yi jàpp ko yóbbu ci géej gi mm-hmm. waaw jàkkay Daaru Xuduus ji day mën nañ ne moo mag jumaay Tuubaa moo ko mag ndax bi sëriñ bi sancee Tuubaa it jàkkaa nga fa woon waaye nekkul woon fii jumaa ji nekk tey euh, ba tax na jàkka yi Daaru Xudoos ci moom moom ak jumaa ji ndax jumaa ji gannaaw sëñ Tuubaa la ci géej gi la ko suñu borom mayee sëriñ bu mag bi gannaaw bi Seyxul Xadim wàcce liggéey Cheikh Mouhamadul Moustapha la njaboot gi féetale kër Daaru Xudoos gi mu féete woo ko ci wàllu miraas ak kër gu mag ga ci njaareem fekk na booba sëñ mag bi di wàcc liggéey ndax bi mu demee ci géej gi <laughs> Touba dafa dafa gent daanaka ay gent rek fi ne ak néegi ñax yu yàgg yuy waaj daanu ak yoo xam ne daanaka amul lu ko téye ak i ay ak gent daal bi ñëwee ci géej gi nag bu ñëw njaareem la ko yeesalaat maam Thierno Birahim mu yeesalaat kër yi mu taxaw mu defaat ko seng yu baax gannaawam nag la Cheikh Moustapha toogee ak jotaayam daal di titre foncier suufus Touba jëndal ko sëñ Touba ci zahir ba sëñ mag bi moom ko ci wàllu kayit daal di féetewoo daaru Xudus Cheikh Mamadou Fadil ñu féetale ko daaru mën naan booba ñooy mag ñi waaw gannaaw la jox Cheikh Mamadou Basir daaru Minan jox Cheikh Chouaibou fii di daaru Rahman waaw noonu la ko kon daaru Xudus jaamu yàlla képp tax sëriñ bi def ko moo tax it def nañ fi daaray kaamil joo xam ne suba ak ngoon saa su ñu ngi fi wàcc ay kaamil am na mag ñu tànn ñu fi xëy di fi gont di wàcc ay kaamil taqdiisan li rabbil alamin ngir jaamu yàlla. daaray kaamil jooji maa koy yeesalaat fi ni nii ñu ngi ci di ko yeesalaat benn néeg la bu rafet buñ war a décorer def ko terale ko alxuraan ngir ndigalul Sëñ Tuubaa li mu fi digle woon loola mooy taq di sën ja euh, kër bayit bi li lépp ci xas digoolu daaru xudus li rabbil alamin mursil ahmada muy lu muy lu yéeme loo xam ne wax na ci biir xasida ay ndaxañteef ak i mbóot yoo xam ne ci kër gi la ko lëm maam daaru xudus day pekku Sëñ Tuubaa day pekk pekk day ak dencu Sëñ Tuubaa boo xam ne dafay denc ay mbootam